Famara Niassy ñu ngi lay nuyu. maa ngi euh, yow euh, journaliste nga waaye itam euh, analyste politique. ñu dooree ko par njiitu réew Macky Sall di far fas yéene tàmbaliwaat tournée économique yi annoncé na ko ci conseil des ministres bu mujj bi nee na dina présider ab conseil des ministre bu ñu décentralisé ci Tambacounda 28 décembre lay doon bii di ñëw lan nga jàpp ni moo lal boobule tournée bi nga xam ne. Euh, boobu le conseil des ministres bi nga xam ne daf ko fas yéene décentralisé. waaw euh, xanaa di rafetlu euh, taxawaay njiitu réew parce que njiitu réew boo demee ba am tey askan ñu wolu la ba teg la ci kaw ñëpp yaakaar naa de temps à autre da nga war a dem di leen nemmeeku xool yow investissement yi nga am yi nga def est-ce que loolu moo ngi impacté population yi parce que ñii di par exemple ministres yi directeurs yi ak ñeneen yi. ñoo xamante ne ay collaborateurs force gouvernement ki euh, nguur gi la euh, ñooñu xëy na ñu ngi def seen liggéey mais du ñuy joxe information bu leer parce que pour ñoom lépp yemb na te souvent chef de l'État da ngay dégg ku mel ni Abdou Diouf lay waat ñoom ñëpp dañu jàpp ni ñoom seen collaborateurs yi waxuñu leen dëgg dans ce cas baaxoon na vraiment moom bi def ay tournée économique tournée économique ku ko dégg mooy dem ci bërëb boo xamante ne xool nga potentialité yi nga xool lan lañu mën a def ba population bi mën ci jëriñoo donc dans ce cas comme euh, tàmbali ko par euh, Tambacounda boo xamante ne zone minière la zone boo xamante ne wurus en pagaille fer en pagaille mais nga gis ni ba tey depuis indépendance ba tey ñu nga gis ni waa Tambacounda ñoo gën a ndóol gis nga ci rapport bu bees bi donc ñoom bokk na ci ñu gën a ndóol te loolu rafetul ñaaw na ci ñi ñu jiite donc dans ce cas ñu moom balaa mu tàmbali lii ñu def benn euh, kayit génne benn kayit def bilan ci euh, tournée économique yu ñu jotoon def proposé fa promettre fa ay milliards def ay euh, conseil des ministres décentralisé loolu yëpp ñu dépensé fa xaalis bu dul jeex loolu ba tey man yow keneen ak keneen musul am benn bilan pour ñu xool ndax baax na naam mun na bu dee baax na lan la ñu mën a rectifier pour ma gën a baax wala bu dee dafa bon am na ay dépenses yoo xamante ne waruñu ko def ñu mën ko def sénégalais yëpp ñoo xamante ne moom lay dem di nemmeeku ñu xam ni ah tournée décentralisée wala tournée euh, conseil des ministres décentralisé ak tournée économique yi muy def nii naam métti na mais am nañ njëriñ pour ñun sénégalais yi te sénégalais yi fu mu toll nii leneen la ñu soxla parce que leneen li mooy seen pouvoir d'achat mooy am nga mën a am xaalis mën ko jëndee dara pour mën a dund loolu je pense que loolu foofu foofu la donc tournée yooyu ñu ngi koy rafetlu mais na nekk tournée yoo xamante ne du nekk ay tournée politique parce que lu ñu nemmeeku mooy bu ñu eggee foofu ñoom ñuy mobiliser ay ay ay di leen solal ay t-shirt je pense que yooyu bu demee bu egg foofu dañuy xam ne ndekete tournée économique bi mujjee na nekk tournée politique te loolu vraiment sone sénégalais yi soxlawuñu ko. Mhm. Euh, ndax mën nañu wax ni campagne la. waaw li ma wax mooy lii campagne la parce que chef de l'État koo xamante ne moom ci buñ ko falee ba tey lu mu def ci yeneen gox yi ci euh, ci yeneen dëkk yi mooy France États-Unis ak feneen ak feneen ak feneen ko ci biir dëkkam donc tey bu demee ba moom mu jàpp ni tey il faut que ñi ma fal jox ma deuxième mandat je pense que ñooñu il faut que li ma investir ma dem xool nemmee ko xool ndax am na impact am na njëriñ ci ñoom seen gafaga je pense que loolu mën nañ ko ra euh, kii euh, lu mais euh, campagne bi il faut que ngeen xam ni deux mille vingt trois mi ngi ñuy dem nii vraiment deux mille vingt trois la boo xamante ne année sociale la ci gouvernement mais année politique la parce que ñu ngi jëm ci présidentielle deux mille vingt te loolu chef de l'État ak nemmeeku tur bi mu gisee ni Ousmane Sonko mu ngi koy def ak yenn opposants yi ci par exemple diaspora bi je pense que ñoom comprendre nañu ni bu ñu jóglee teel dinañu am mbetteel dinañu am mbetteel donc dans ce cas moom tournée économique bi bu dee ci économie kese la yem Euh, ñu ñu ñu mën nañ ko saluer mën nañ koo ko rafetlu mais malheureusement dina ko fekk ay nit ñooñu sax ñi bokk APR wala Benno Bokk Yaakaar ku nekk di euh, wone président de la ko man maa gën a am ay mbooloo man maa gën a mobiliser te loolu bu ko defee rek nga xam ne loolu te moom Macky Sall bëgg na lool lool lool lool ñuy mobiliser ñuy xool leen ci coupe du monde bi lii nii ak suñu qualification bi lu mu lu mu dajale ci euh, grille euh, palais présidentiel donc loolu il faut ngeen xaar ni que ça sera politique te kenn mënul gëmloo sénégalais yi que tournée économique yi ak euh, conseil des ministres décentralisé du mbirum politique mbirum politique la parce que première tentative bi mooy conseil des ministres décentralisé ak tournée économique yi yëpp yi ñu gisoon au précédent loolu lépp dafa nekkoon euh, mbirum politique. ñu wax ci assemblée nationale session budgétaire bi tàmbali na ay fan. waaye mu mel ni euh, dañu nemmeeku division ci opposition bi ndax lañ fa doon xaar mu mel ni amul muy rupture. waaw euh, rupture am na rupture bi mooy d' abord li sénégalais wone xam ni assemblée mënuñu nangu di joxe ay majorité écrasante yoo xamante ne dañuy nelaw. ba jóg rek voté donc yooyu amatul boobu da ngay gis ni comme déjà euh, doole bi dafa xaw a yem donc dans ce dina am vraiment ay yenn bras de yi dina am ay xëccoo dina am euh, yenn euh, kaddu yi jóg mais kaddu yooyu dañ ko war a jëmal ci intéret Sénégal malheureusement li ñuy jot am tuuti mooy yenn kaddu yi dañuy vraiment dañuy ñaaw mais loolu lu rafet la il faut que nit ñi xam ni ñun c'est pas la première assemblée du première assemblée Sénégal moo mel nii c'est-à-dire que assemblée dañuy dem ba nit ñi di poñante parce que ñooñu li ñu bëggee teg par exemple lu mel ni loi wala bëgg leen voté voteloo ay budget bu dee jëmul ci intérêt population bi dina gis dina gis koo xamante ne jóg vraiment mais lii mënu fi am kii ne ko dina fi am donc dans ce cas bu dee loolu yëpp dañ ko jëmale ci intérêt population bi waaw man de gisuma ci benn gàtt-gàtt mais ci doole bi ñuy xalaat ñu bëri yaakaar ni opposition bi dina dem di bloquer ay ay ay ay assemblée loolu sax du xalaatu opposition nit ñi ñoo ko jàppee noonu mais tey il faut que ngeen comprendre que am na ñett ñoo xamante ne ñoom nañu ko waxee fii tëddee wax ko tëddee mooy Euh, ku mel ni ni ñu Touré Aminata Touré kooku génn na xa naam parce que gisuñu boppam ci benn Bokk Yaakaar mais lépp loo xamante ne dina bloqué euh, gouvernement bi moom di ci bopp. Mm-hmm. moom quelles que les conditions euh, vraiment xalaatoom xelam mu ngi ci côté bale même bu dee sax am nañu problème dafa mel ni ñaar ñu am problème mais du ñu dem ba di bañante de telle sorte que bu dee vote pour l' intérêt de la population. ak intérêt nation bi nga bañ ko voté donc keneen kii mooy Thierno Alassane Sall Thierno Alassane Sall ku nekk xam na ne nu muy wax ne di euh, dénoncer yenn budget yi orientation yooyu yooyu naam waaw ci euh, kii am la mu ngi mu ngi mu ngi def liggéeyam mais xam nga ni ci vote di voté contre parce que xam na ni bu voté contre peut dina def le travail de l'opposition la grande majorité de l'opposition keneen kii tamit mooy Pape Djibril Fall Pape Djibril Fall quelle que soit critique yi muy def au moment du vote yàlla xam na ni day voté pour donc ne ñu bàyyi yaakaar ne oui non non non Pape Djibril Fall day voté contre non donc dans ce cas boo amee les quatre vingt deux députés euh, ak ñii mais nga gis par exemple taxawaay tey Ahmed Aïdara nee na moom daal fu mu toll lu mu gañe ni yëpp gàpp moo ko jox donc kooku nga xam ni. Mm-hmm. kooku du bokk ci Yewwi ak wàllu pour que ñu mën par exemple voter contre yenn budget yi. donc kooku tamit dina ñëw yokk xam ni karaw pour que tout simplement ñu voté budget mel noonu donc ñooñu boo leen xoolee ak ñoo xamante ne ci biir wàllu dem nañu ba ñoom ñenooñu ñëw pour kii mu ñu yóbbu yóbbu ay procuration je pense que boo jëlee trois ci wàllu nga jël quatre yi nekk fii nii kenn ci yeew yi ak trois yële je pense que sept plus les quatre-vingt-deux députés bu majorité présidentielle je pense que ñooñu kese kese mën na tax ba ñu voté yenn budget yi parce que budget yi tamit bu ñu demee ba yaakaar ne il faut ñu bloquer non non non lii mënul tax ñu bloqué ko c'est-à-dire que discussion dina am mais au moment du vote ñu bëri gis ngeen ne vraiment dañuy voté pour euh, vraiment euh, ministère bi mën a am fiction euh, donc sama xalaat mooy mhm. nous sommes dans une assemblée ñu ngi ci benn assemblée waaw sénégalais yi noonu lañ ko bëggee mais nañu rafetal kaddu yi parce que tamit au delà des des des moo vraiment action yi il faut que ñu dem jëm ci euh, jëmale ko ci intérêt population te man yaakaar naa en tant que analyse loolu laa gis mënuñu nangu kenn di bloquer euh, vote budget parce que bu amee euh, crise ci biir assemblée dina am impact ci gouvernement bi bu amee impact ci bi dina am impact ci population bi donc loolu de indi crise générale te ñun ñaanuñu ko quoi. dëgg la euh, ñu wax ci njaayum carte bi côté majorité annoncé woon nañ dañuy jaay lu ëpp un million ci ay carte yoo xam ne. ñaar fukki dërëm lañ koy jaayee waaye mu mel nii rek ñoom waa pouvoir bi boobu lañ jaayum carte sawaruñ ci lool waaw eh, kii eh, jaay carte moom man de li ma jaaxal ci loolu mooy eh, APR ñu bëri dañu jàppoon ni APR du parti bu ñu structuré car parti parti la boo xamante ne benn chef la am te ba pare ku nekk di cëppi cëppi ci ginaaw comment dirais-je chef boobu ñu weddi ko weddi ko ñu gérer yàlla may leen ñu gagné ñoom ak mouvance présidentielle bi APR gagné ñu teg fa le président de la République Macky ñooñu bu ñu demee ba à partir de mille 2012 ba 2022 ñu toog 10 ans ñu ñëw tey pour wax ñu ay affaire de vente de carte man daf may jaaxal parce que loolu day wane que ñoom ñiy bokk APR defuñu seen liggéey parce que ñoom mbirum poste moo leen yitteel mais demuñu pour massification par exemple seen base yi mhm. te base yooyu tey tey tey boo demee ba di jaay carte cent francs ah lii de moom war na tiital ku ne mais loolu il faut que ngeen teg ci benn contexte. Mm-hmm. contexte bi mooy nemmeeku tur bu Ousmane Sonko commencé na def ay effets yoo xamante ne ñoom ñi nekk ci mouvement présidentiel xam nañu ko ñu bëri ñu ngi ne waa Benno Bokk Yaakaar ñu ngi préparé pour par exemple bloquer kii euh, nemmeeku tur bi parce que nemmeeku tur euh, stratégie ñoom ñu ñu ñu teg mooy gan koo xamante ne monde rural te monde moo joxe Macky par exemple victoire bu mel noonu donc tey di ngay Ousmane Sonko mu ngi song ci monde donc cent francs carte de membre vraiment dëkk bi métti na mais ñoom waa APR c'est parce que tout simplement liggéey ñu li tax ba tey ñu mën a jaay euh, ay cent euh, un million cinq cent euh, mille cartes donc un million cinq cent mille cartes loolu il faut que nit ñi tamit taxaw seetlu taxaw seetlu bi mooy tey euh, ay experts yu bëri ñu ngi jóg pour ne suñu fichier électoral bi dafa nekk loo xamante ne nu ñu ko nangu parce que ñu bëree bëri la ñu euh, voté taux d'abstention bi dafa bëri ñi décédé ñi faatu ñoo xamante ne ñu ngi ci invalidité pour que ñu mën a voté ñooñu tamit dañoo bëri dans ce cas opposition bi au lieu ñoom ñu perte aussi cinq ans ci nemeeku tur waa naam baax na mais di wër euh, diaspora baax na di euh, organiser ay conférence de presse yoo xamante ne da nga koy wax loo xamante ne c'est ponctuel nañu dem exiger vraiment ñu xool ñu raxas euh, fichier électoral bi parce que li ma gis ni moo di waa APR voilà waa Benno Bokk Yaakaar dañu bëgg a méngale vente un million de cartes de membres ak un million d'électeurs loolu bu ñu demee ba egg boobu benn confusion lay indi benn biccu mbaale lay indi boo xamante ne fi ñuy jëm du baax parce que tout simplement bi ñu demee ba ñoom ñu yaakaar ne un million cinq cent moo taxoon ba Macky Sall amuloon yenn majorité yi ñu yaakaar ne en euh, vendant euh, bu ñu jaayee un million cinq cent cartes bu ñu demee ci élection deux mille vingt quatre loolu mën na tax ba ñu ñambaas ko ci biir ba ñoom ñu am euh, ñu gagné élection deux mille vingt quatre quel que soit le candidat muy Macky Sall muy keneen ak keneen avec un million cinq cent bu ñu ko dugalee foofu rek xamal ni dina metti ci opposition bi te opposition bi moo war a jóg te ñii nekk ci nguur gi dañu xam ni li jeex jeex na keneen ak keneen ak keneen nañu pacifier dëkk bi parce que sénégal yi leneen la ñu tal que toog fii di sànnante ay xer ak ay ak ay di di nooy lacrymogène mhm. je pense que ci loolu la ñuy dem te deux mille vingt quatre balaa deux mille vingt quatre mooy deuxième euh, moitié euh, année bi mooy bu ñu demee ba dugg ci juin juillet yooyu dina commencé di tàng parce que loolu dinañ ko def que politique te malheureusement sénégalais yi soxla ko parce que adduna bi mu ngi ci crise te loolu la ñuy xaar ci euh, euh, ñu wax rek ci confrontation bi diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr annoncé nañ ko pour le 6 décembre bii di ñëw euh, lan lañ ci mën a xaarandi côté politique. waaw coïncidence pour coïncidence 26 comment dirais-je 26 le 6 le 6 décembre. Euh, euh, c'est que euh, yow 6 décembre ñu xool mbirum viol nu mu grave li accusatrice bi wax mooy Adji Sarr li mu wax lépp amul benn firnde boo xamante ne indi na ko wax ko ñu ñu ci biir ay témoins amul kenn ku plaider en sa faveur je pense que bu ñu demee ba toll ci li mel lu mel ni viol te viol ñu criminaliser ko je pense que waroon nañu am ay accusatrices yoo xamante ne ñu téye ay ay preuves te preuve ci ay image loolu c'est pas donné du du preuve quoi léegi bu ñu demee ba gynécologue bi wax ni loolu amul keneen ak keneen mais loolu amul je pense que bu ñu nekkoon ci benn pays boo xamante ne justice dafa indépendante yaakaar naa lii loolu yéen la ñuy dem mais confrontation. naam waaw nañ ko def mais na nañ ko teg ci ci ci règlement mhm. parce que quelles que soient les conditions ñaari yi yaakaar ne ñoom ñoo sëg mbir mi ba mu juree ñu fii ay ay ay ay ay ay suñuy doom ñu ñu faat leen je pense que loolu mënuñu bañ gis Ousmane Sonko ak Adji Sarr toog wax ci kanam juge d'instruction mais loolu day indi encore yenn dossiers yi parce que bu demee ba lu mel ni Sitor Ndour ñu ko bëgg a méngale ak euh, problème Ousmane Sonko ak Adji Sarr ñu indi mbiru Kalifone ak euh, Adja ñu bëgg ko méngale ak euh, problème Adji Sarr je pense que dañ ko bëgg a indi dañu bëgg indi confusion te dossier bi dafa leer bu nekkoon du justice boo xamante ne dafa bañ lente moom nee na du indépendante lii dossier dañ koy ñu jàll ci leneen mais comme Euh, homme politique la boo xamante ne xëy na dafa lëmbee nguur gi ñu ne il faut que quelles que soient les conditions mu ñu ñu dugal ko te loolu xam nga ni muñul nekk fu mu toll nii Ousmane Sonko il faut que moom ci boppam muy yuuxu ne leen waaw waaw man maa ko def nii laa ko defee nii laa ko defee nii laa ko wa illa buñ ko bëggee eh, jàpp ci anam yoo xamante ne leerul dinañ bu indi par exemple problème donc dans dans ce dossier là ci dossier bii yaakaar naa il faut que sénégalais yi nguur gi eh, bi. mu xam ni fu mu toll nii lu leer moo mën a tey tey Ousmane parce que fu ñuy jëm nii mooy tere mu nekk candidat en deux vingt quatre da ngay gis encore que il y a une politisation dans ce dossier dossier Karim Wade dossier euh, Khalifa Sall ñu mm. mais yeneen dossier encore ñoo xamante ne dañu leen politiser bii moo gën a encore limbay euh, Sénégal donc je pense que. Mm-hmm. confrontation naam mu am ñu déglu ñaar yi bu dee seen wax bi dafa euh, méngóol. vraiment le juge doit prendre ses responsabilités jël responsabilité vraiment classé sujet kii euh, dossier bi ñu jàll ci leneen ku war a gagné en deux yàlla may ko mu mën a yóbbu Sénégal ci loo xamante ne musu ko am mais bëgg jël Adji Sarr Ousmane Sonko def ko vraiment sujet de développement national mm-hmm. je pense que loolu journalistes yi ñun ñoo waroon éviter loolu euh, population yi dañoo am leneen li yitte parce que seen pouvoir d'achat ak crise yi dafa bëri de telle sorte que ñoom dossier bi dañ ko classé ñu ne euh, justice populaire waaw justice populaire am mais justice moom na xam ni moom moo deful liggéeyam de telle sorte que justice populaire am te yaakaar naa ci loolu la ñuy dem magistrat yi dañuy war war nañu jël seen responsabilité xam ni àdduna bi day jeex te ñoom ñun ñëpp dem bàyyi fii suñu euh, njaboot yi. d'accord jërëjëf merci beaucoup Famara Niassy. merci beaucoup madame Sylvie. di fàttali euh, journaliste nga waaye itam analyste politique.